at mu jot ci màggalu Touba dëkk bu sell bilee di dalal nit ñu bari di bàyyeekoo ci gox yu fasanti jëm ci wàllum urbanisme itam bàyyi nañ ko xel bu baax Cheikh Tidiane Diagne chef service urbanisme bu Mbàkke te xam nga ni Touba dëkk la boo xam ni euh, daanaka dëkk bu mag la dëkk bu mag la te te période màggal gi doomu aadama yi fii ñëw seen kaaraange dañ ko war a saytu ba ñu ci ñëw màggal fi ci jàmm ñibbi ci jàmm ba tax na ñun ci wàllu urbanisme dañoo jël décision ni Euh, dañu fi def ay visites yoo xam ne en collaboration avec euh, ñi nga xam ne ñoo wàllu sécurité lu mel ni police ak gendarmerie ak sapeur pompier dem ci yenn dëkkuwaay euh, dëkkuwaay yi tabax yu mag yii la nga xam ne day dalal ñu bari. lool nag tax muy am solo lool ak saytu gu nga xam ne dañu koy def ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ci wàllum urbanisme ngir gën a xam yooyu yële bâtiment yi nga xam ne dafay dalal ay kilifa yu bëri. dëkkuwaay yi yu ci mel ni kër maam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul dañ ko visité xool parce que foofu ay kilifa fay ñëw ay kilifa. Euh, diine ay kilifa aada ay kilifa politique yëpp dañu fay ñëw laaj na ñu nekk dans des dans de très bonnes li ñuy wax aussi édifice public maanaam bâtiment yi nga xam ni bâtiment yoo xam ni yu mag la nekk fii ci dëkk bi dañ dañ ko contrôler xool leen ba xam ndax mën naa dinañ mën a yanu ay doomu aadama yi fii ñëw googal ak saytu nag dina may ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di techniciens yi ñu gën a xam jafe-jafe yi nga xam ne moo ci nekk ak taxawaay gi nga xam ne itam warees na ko ci mën a amal gan ñi nga xam ne ñooy ñëw ci dëkk bu sell di Touba ci jàmm ak xam nga étage boo dañ ko tabax mu ay 40 euh, ans wala 50 ans ñu xëy suba ay junni junni nit yéeg fa bëgg faa fanaan mën naa indi ay jëye bu màbbee te loolu loolaa nga lay doon te xam naa ni euh, sëñ bi loolu gënalu ko ndax bu sañoon dëkkam bu tedd bii ku fi ñëw da nga fi ñëw ci jàmm jàmm yàlla fi ci jàmm sàkku fii li nga fiy sàkku ñibbi ci jàmm egg fa nga fa nga jógew ci jàmm ba tax na daal loolu mooy suñu mbëbët te xam naa ni euh, administration bi taxaw na ci kilifa déni nii aussi wax nañ leen suñu xalaat ci loolu te xam naa dañ ci taxaw ba nga xam ne daal dana dana am dañ kaaraange gi dana ko yokku ci wàllu population yi ak ci wàllu sécurité incha allah. bilab taxawaay nag ràññee ko lool rawatina nag liggéey gu am solo gi nga xam ne ñu ngi koy amal ngir ñu mën a amal màggal ko Tuubaa gu mucc ayib.